di nuyu alxulafa di nuyu ruasa ul di nuyu al aima wal di nuyu gëstukatu lislaam ñëpp di nuyu góor jigéen mag ak ndaw di nuyu waa adduna di nuyu waa Afrique di nuyu diaspora bi di am mbégte di ñëwaat ak yéen si émission bi ngeen baaxoo am ajjuba ju nekk si waxtu wi di autour des funérailles ñu gën koo xamee si wareefu dëj ñi ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo ñu mayaat beneen occasion ak yeneen xar kanam tey studio bi dalal ay soxna yu tedd ay jàngkat ay gëstukat ab journaliste mi ngi si waaye ab jàngalekat mi ngi si muy soxna su baax ñu naan ko fatima ba ak soxna xadijatu sow ñu nekk dewm réew mi nekk ñoo xam ne ay soxna lañu macha allah ay école lañu ay jàngkatu diine lañu waaye ay gëstukat lañu waaye nag ñi ngi participer si jël suñu doom yi di leen tàggat di leen def ay nit waaye di leen xamal li nga xam ne mooy diine yàlla ji subhaanahu wa taala mbokki jurit yi comme ni ñu baaxoo def rek émission bi dafay dalal ay boromi xam-xam ay gëstukat di leen jëlee nag fu nekk soxna Fatima mi ngi jóge Géejawaay soxna Khadija mi ngi jóge Kër Masaar ñi ngi nuyu waa Géejawaay gépp di nuyu waa Kër Masaar di leen dalal di leen masawu coona di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu fayal ñu leen waaye tamit di ñaanal seeni waajur ñi nga xam ne ñoo leen tàggat ba tey jii ñu war fee joxe war fee wasaare lenn lu bokk si wàllu diine rawatina émission bi ñu doon waxtaanee bi passé muy liñ tuddee tënc mbokki jullit yi li tax ñu invité ay jigéen jigéen mooy tënc yàlla na nag waaye jigéen limu mu xam si tënc góor xamu ko ruq-ruqaan yeeg niñ koy defee li si bokk ak li si bokkut moo tax tey ñu jël ñaari soxna yu tedd yi si plateau bi ñu war a jàngataat ak yéen si beneen numéro si beneen angle lii nga xam ne nii moom mooy tenj kon duñu guddal dañuy jox soxna Fatima mu nuyoo ñu jox soxna Khadija ñu dugg directement incha allahu taala si émission bi di ñaan nag yow mii seetaan yow mii déglu jëlal sa bik jëlal sa papier nga noté yi nga xam ne nii soxna yu baax yi danañ ko fi wax ndax yàlla man laa jariñ bu ëllëgé bo amé mbokk mo xamné ni mi ngi ci wala yow sax yaa ngi ci yàlla na yéx nga xam ni ngi koy défé te l'islam du la jëppi soxna Fatima salaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah ñu ngi lay nuyu oustaz mohammed di nuyu sayyida sayida alkarima sayyida Khadija di nuyu képp koo xamante ne rek mu ngi seetaan RTS di ziar ñëpp di am mbégte bu baax a baax teew si émission bu tedd bi ak bokk ko tamit ak Seyda Khadija macha allah di profito si occasion bi rek di jalé umma islam bi yep ki nga xamante ne mooy soxna su tedd xaadimatul quranul karim Seyda Mariama Niass nga xamante ne jaar nañ si loxam di ko jaale suñu bopp di ko jaale mbokk jullit yëpp di leen ko jaale macha allah. jërëjëf soxna Fatima ñu nit ñi ngi euh, jël suñu njaal di ko teg si ñi nga xam ne ni ñoom ñooy waa mm-hmm. rawatina waa Kaolack ñu jaaleel ñu suñu soxna soosu nga xam ne mooy soxna Sayida Mariama yàlla na ko yàlla teeru sa aljana ya gën a kawe yàlla na ko yàlla barkeelal dundam yàlla na yàlla jël alquran mu teeru ko waaye mu jël alquran mu àggaleeg moom ba si aljana yi gën a kawe barakallahu fiik mm-hmm. soxna Xadija salaamaaleykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نينان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرة الإمام لو دل جاجفل دل نيان الجامع التوفيق نك نونو زياره مبولم كو خامتيني موغي سيتان اختي اس راوتينا سي جي واي نيغي زياره مبولم كليفه dëkk bi muy kilifa yi Sénégal gépp ñi nga xamante ni ñoo jëm ci wàllu li nga xam ne mooy aada bi comme niñ koy waxee ak kilifa ñi nga xamante ni ñoo yore diine yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jébbal suñu ay loxo di leen nuyu na mu gën a sellee di leen ziyaara di leen wàccee seen i ay wàccuwaay kenn ku nekk ci ñoom di leen jaajëfal waaye nag di jëlaat loxo yi rek di ko tegaat comme ni ngeen ko waxee yow ak sayida Fatima Alkarima ni ko waxee léegi ñuy jaalee raidatul Quran boobu nga xam ne mooy dem muy as sayida Mariam al Habiba sayida Mariama Niass euh, rahimahallah wa radiya anha ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yal na Quran doonal ko shafia fa nga xamante ni foofu la ne yàlla yërëm ko yërëm julit ña mu fa fekk oustaz ñu ngi lay jaajëfalaat Masha Allah, jerejef soxna Khadija, jerejef soxna Fatima Ba. Dafa melni tay peli ñom momé, yakar na sérère ci ma ngi leen di xaar. Euh bayiwul nak plateau bu may gis sérère sérère bu jigen bu bu traité l'islam de soxna Fatima. Wa soxna Fatima kon dafa melni eh, tay suñu émission bi dafa jëm ci walu liñ tuddé al-idda. Ñu mhm. gën ko xam ci wolof eh, teñ. Mhm. Soñu ko doon définiral. lan nga ñuy jox soxna Fatou waaw oustaz di wax ne rek indi nga tem bu am solo machallah tem bo xamanteni jigen ñi soxlo nañ ko lool ñu ngi koy xaar koku wax rek da fay wax ne loolu war nañ ko waxtane ndax te soxlo nañ ko bu fekkee ne wax nañ ni teen ji arab di ko wax al ihdad bu fekkee ne si langue arab nu mu ko définir mooy al imtina mooy bàyyi lu tax ñu ne سميت الحاد الحادة محدة لوتاخ ني توديكو آه، محدة نخ دا فاي تري ين مبيري آه، شريعة إسلامية موميت بو فيكيني بوغ نانكو ديفينير سي والو شريعة ريك دي ني عن اشياء عن اشياء مخصصة آه، مخصوصة من زمن مخصوص bàyyi yenn mbir yu particulier si jamono bu particulier mhm. ndaxte tenj mhm. benn jamono rek la mhm. euh, boo xamante bu particulier la ñu koy euh, jàpp si ñeenti weer ak fukki la sant jigen bi yu ko jamono boobu quatre mois dix jours Euh, bu fekkee ne jigéen bi borom këram faatu na rek mhm. si jamono bu mu faatu la war a commencé teññ bi te tenji nekk loo xamante ne jaamu yàlla la mhm. ndax yàlla moo ko santaane ci alquranul karim mhm. yenent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi gën koo dëgëral kon nag teññ farata la boo xamante ne jigéen bi farataal nañ ko si kawam mais jigéen boo xamante ne borom këram faatu na ki nga xamante ne euh, sëyam dagan na mm-hmm. sëy boo xamante ne bu wóor la saxiix la mm-hmm. koo xamante ne euh, macha allah bépp jigéen boo xamante ne mu ngi nekk si buumu sëy rek daf daf koy war mm-hmm. muy xale muy mag muy màgget muy koo xamante ne mu ngi am doom muy koo xamante ne amul doom di dañuy wax ne sax même jigéen bi nga xamante ne dañ koo fase woon mhm. comme niñ koy waxee ak talaaqu raja yi mhm. euh, fase boo xamante ne mun na delluwaat ci ay loxo borom këram te idda bi jeexul maanaam fase goo xam ne dogagul dogagul mhm. kookit day teññi borom këram bu fekkee ne ku góor ki faatu na rek Euh, moom idda talaaq bi idda bi nga xamante ne moom mooy idda fase bi jeexagul day arrêté idda boobu commencé idda teen bi si jamono bi nga xamante ne borom kër bi faatu na te kenn waru koo tardel mhm. kenn ta xaar dañuy xaar euh, bu ñuy root ko mhm. wala sax ñu naan euh, da ngay xaar bu ñu def yenn aada yi mhm. nga doogay sangu commencé te ñu déedéet jamono bu borom kër bi faatoo rek la war a sangu ba set mhm. li nga xamante ne mooy liggéeyam di tënj te mu jàpp ne jaamu yàlla la mhm. te jaamu yàlla tout le temps bu koy def dafa am façon boo xamante ne moom lañ ko war a defee mhm. ak charte yi nga xamante ne moom lañ ko teg nga defee ko nu mu waree macha allah léegi Fatima ma bëgg a xam foofu ndax jigéen ji nga xam ne ni dafa gis mbaaxam borom këram faatu tey mais fekk mi ngi si mbaaxam day bàyyi ba set day jàpp teen ji day jàpp teen ji oustaz day jàpp teen ji fu mu la fekk rek ak mhm. da ngay jàpp mooy nga set ak nga ñàkk set muy nga lu am solo la parce que am na mhm. jigéen ñu bari ñoo xam seen jëkkër day faatu tey mhm. ñu toog ñaari fan ñetti fan ba juróom ñaari fan sax léeg-léeg a a tàmbali am na solo soxna Khadija dégg nga soxna Fatima li mu wax lan ngay indi ak lan ngay dolli. Mhm. waaleykum salaam beneen yoon macha allah di jaajëfalaat euh, Seyda Fatima mhm. na yàlla sàmm. Mhm. comme ni ma xam ni nga xamante ni noonu la ko waxee. xam nga li nga xam ne mooy tenj. bu ñu doon ñëw ci leeral lan mooy ten tenj rek. mooy li nga xamante ni bu fa doomu aadama tolo dafa am lu nu ko war a tere. mais lanu koy tere itam dafa am app. app ba bu jotee lan ko doon tere daf koy bàyyi daal de da cay euh, da cay deñ daal di istinaaf na mu de na mu nekkee woon. mooy mu dellu ca xaala ba mu nekkoon nekkoon laataa ñu koy tere mhm. kon boo déggee ci ixdaat bi lugal arabiya rek dèjà alman a ngay am mhm. mooy li nga xamante ne arraf masalan dañ la tere mbir mhm. dafa am loo xamante ne dañ la ne nga bàyyandi ko loolu la fay wone mais boo demee tey jii li tax ñu naan tenj mooy dafa am koo xamante ni boroom këram dafa gaañu léegi am lu lislaam gàll ci kawam nekkoon ko nii la ñu bëgg ngay dundee ba app bi ñu la tegal muy ñeenti weer yi ak fukki fan yi ngay doxale nii defal lii bul def nak nag tege ci li nga xamanteni mom moy mooy sharia al islamiyya mu nek jigen bi nga xamanteni دفني وون جمنا برامم سبحانه وتعالى دف جابون ني يونت بي صلى الله عليه وسلم موي روي وايام دون صوب تي يونو ديني دي تي دوخ دون جيما غور غول تي ليپ لو خامني جامو يالا دي جيما مويتو ليپ لو خامني تري بروم بي لا سبحانه وتعالى بو جامنو تينجي جوتي داف كو ورا فيدالي ليم كوي في موي مو خول لان لا كو تي شريعه ام ديغال لان الاسلام اندي لو خامتيني موي ليميير غو كوي وون نان لا كو ورا دوندي بيريود بوبو دافاي ووتيك مبولم كو خامتيني رك يارول تي كيباري الاسلام دافاي ووتيك mboolem ki nga xamante ne rek doonul woon koo xamante ne da doon utiliser ni ko diine tegalee yoonam mu di ko xàllalee yoonam mu fay jaar mhm. kon bu boobaa day am lanu koy tere mhm. lan koy tere mu respecté bàyyi ko waaye dafa am mhm. nañ ko waxee mu dundee noonu mooy dinañ ci yegg incha allah xam naa euh, ba nan la war a soloo ba nan la war a toogee yooyu yëpp da cee am incha allah ba lépp loo xamante ne rek euh, du jàngale bi lislaam rek dinañ ko seppi wone ne lii de bokkul ci li nga xam ne moom la ñu charia tegaloon ci kuy tenj di jullit di toppandoo lislaam nii la ko war a def defee macha allah soxna mm-hmm. Khadija mm-hmm. soxna Fatima macha allah fi ngeen ñëw am na solo mm-hmm. waa soxna Fatima euh, dama bëgg xam ba xam xam nga la plupart ñiy tëñ yi seen tëñ dafa métti lool métti na tàng na daanaka salte na lool la wan a wax da gis koo xam ne nii boo buy tëñ boo duggee si néeg bi nga koy jaalee léeg-léeg néeg ba xet ga moom melokaanam oh, na muy lëmasee tànk ya na muy na muy ñàkk a sete léeg sax mu teg benn bool boo xam ne nii fa lay def suuf di fa tifli maanaam ñu bëgg a xam ba xam ndax loolu diine la wala nit ñee ko euh, def si tënji te fekk bokkul. oustaz euh, loolu bokkul dara si diine. Mhm. loolu du diine bokkul tamit si li nga xamante ne moom mooy tënj. Mhm. Euh, islam dafa bëgg lu set bëgg lu laab. Mhm. lépp loo xamante ne setul laabul bokk ci lislaam يلا تبارك وتعالى لمن سنت مومي ستك لاب تي دافا بوغلو رافيت ان الله جميل ويحب الجمال ما شاء الله يلا كو تارو لاكو رافيت لاكو بوغلو تارو كو بوغلو رافيت لا ما شاء الله تي ست اك لاب سي دين لا بوكو ليب لو خامتاني بيب جام يالا بي ني ديف سي اسلام لون لاي نيك واخ موي لاب اكسبت سي لول لا نيكي سي لول غاي دوغي ما شاء الله كون نك ليغا خامتاني moom mooy melukaan bi nga xamante ne moom nga wax ni ngay fekkee ñi nga xamante dañuy tënj loolu bokku ci lu ko waral nag mooy aada yi nga xamante ne teg nañ ko mhm. dugal nañ ko ci njaamu yàlla boobu di tënj mhm. bu mu ëpp leen doole mhm. mu indi jafe-jafe yu bëree bëree bëree bëree mm-hmm. mu jaaxal jigéen ñi torop torop torop ñu sonal jigéen bi mais non seulement dañ koo sonal teg ko lu diis a mm-hmm. mais dañ koy yàqal li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla macha allah gis naa sax jigéen ñoo xam si biir tënj ji bu pare dañu dañuy feebar dañuy feebar parce que oustaz bi nga toog taalal say tànk taalal say ñu ne la da ngay toog jàkkaarloo penku taalal say tànk rek doo ko dindi mm-hmm. dañ lay jox li ñuy wax si laan ak paak ak bantu baleeg ñu ne la da nga koy parce que du ñu bëgg nga taalal say loxo tout loxo da ko war a bank mhm. donc pour nga def ko te amoo habitude bi il faut nga nga ñu jox la loolu nga téye ko te mhm. loolu tamit wax dëgg yàlla bokk ci mhm. beneen bi mooy tilimaay bi xet bi lu koy waral mooy dañ lay wax ne yow par ajuma kese nga war a fóot par ajuma kese nga war a sangu mu nekk lu doy waar hmm? mu nekk loo xamante ne kenn xamul fan lañ ko teg kon diine waxul loolu mukk abadan abadan te bu ñu ñëwee si li nga xamante ne moom mooy churur ya nga xamante ne diine moom la wax jigéen bi noonu la war a tenjoo hmm. dañ ko amul jour bi nga war a sangu ni nga doon sangoo ngay sangoo mhm. dangay sol yëre yu set mhm. kenn la waxu la nga sol yére yu tilim wala yëre yu ñaaw yëre yu doy waar mhm. dañ la wax ne rek bul sol yére boo xamante ne dafa taaru bu a neexee nga toog si canapé bu la neexee nga toog nga toog am na ñoo xamante ne lu waral ñuy toog si suuf tamit dañuy wax ne boo toogee sa kaw lal boo tëñ bi jeexee da ngay saraxe lal bi da ngay saraxe lal da ngay saraxe lal loolu de maa ngi koy doog a dégg da ngay am na yu bëree bëri oustaz bu ñu la ko waxee da ngay yéemu da ngay wax ne lii waaw yooyu nag laa bëgg ñu wax ko fii parce que ñii seetaan ak ñii déglu dañoo war a xam yu mel nii ndax buñ si tolloo xam ne lii mooy lislaam lii mooy aada aada imaam Euh, pour wax ne rek jigéen ñi dañoo sonn. sonn nañ trop dañoo sonn trop trop yi ñu leen teg si te ni dafa yéeme. gis nga aljuma boobu ñu wax ne jigéen bi si lay sangu. Mhm. dañ lay wax ne balaa ngay sangu balaa ngay fóot sa yére da ngay génn ànd ak benn mag ngeen yore layu. layu waaw ngeen ànd sara yelwaan. yelwaan fu jëm fan. ñu sarax la am na xam nga nag euh, dafa jar ñu préciser. Mhm. aada yi dafa bëri. dafa wuute am na boo demee si ñii aada pël yi séeréer yi uh-huh. joolaa yi uh-huh. ñeneen ak ñeneen saalum saalum te nag nu mu amee Sénégal noonu la hmm. ame si yeneen réew yi noonu la amee si réewu naar yi am hmm. si yeneen xeet yëpp macha allah hmm. foo dem rek ak seen i aada fii Sénégal dafa bëri ay aada bokk na ci ñi nga xam ne am na ñenn ñi seen aada bokk na ci balaa ngay sangu da ngay dem yelwaani yore sa layu ñu ñu sarax la léegi nga ki nga àndal da ngay dem ba nga pare boo pare pour ñëwaat ci kër gi nga def ni sànni ko kee for ko ngeen dugg si kër gi. li nga yelwaan nga yelwaan ko si gannaaw. moo xam ceeb la moo xam dugub ma doon. mun na am xaalis la sax. Mhm. nga def ko nii mhm. moom mu jël ko for mhm. bu fekkee ne peut-être ceeb yeeg yooyu day am lu mu dëkk nga nga ko sotti ko ci. ngeen dugg nga doogay sangu doogay mun a. fóot sa yére loolu bokk na si aada yi. bu fekkee ne da ngay toog. sept jours sur sept. ñu ne la benn jour ngay sangu da nga xeeñ de. wallaay di nga xeeñ. yàlla bu toseeg nag <laughs> jamono tàngoor wala nga xamante ne moom xeet yomb te yow jamono boobu munoo parfum mhm. munoo def cuuraay mhm. munoo def dara mhm. lu lay arrangé mooy nga sangu ba set sol yére yu set te nag imam kii nga xamante day te ñu day jaamu yàlla war ngaa julli xanaa boo demee bay jàkkaarloog sa borom ngay julli war ngaa set loolu rek war na tax ñu kii tout le temps ah, soxna Fatima li nga li nga fëgg am na solo soxna Khadija dégg nga sa ناتانغو بي احسن نطق لان غي يوكو <laughs> ما شاء الله كوم نيكو عرب دي واخي واتي على لساني وايدو تريني آه، ليب رك توضيح لا باسكو آه، بو نيو خوله جيجين ني تيني سينيغال نيغا واخي كلمه بي صح آه، خامي ووكو حنا Euh, de nous sonal jigen ñi nga xamni ñom ñoy téñje dang ci gis ño xamanteni fi may gëna cité moy da ngay gis ko xamanteni bam ci joggé la jëlé ay fièvre yo xamanteni té nak dañu tek seen ko lo xamanteni ma nazzala Allah biha min sultan lañu leen tek bo ubbé alquran do ko ci fekk mhm. bo ubbé hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam itam do ko fi fekk mhm. té yaakar na né ñaar yoyu ñom ñoy suñu ay lumière fa la jullit bi sa yu amé lu la jaxal sax wa in tanajatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli sa lu jaxlé ci mbir sax ñaari képar yoy lan wara a dellu muy alquranul karim ak sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mais bo xolé lañ lay télo benn paaka benn bantu bale benn salaan jox la ko nga téye ko loxo ndeyjoor mbaa nga téye ko loxo càmmoñ mel ni yow dañ la ne malaaka bi fi jëlee sa borom kër sooy dar su loolu da nga naan dafa mel ni ah, malaaka bi fi jëlee sa borom kër bu la jegee yow nga yor paaka dina la moytu ah, mel ni dee gi fi jóge boo ñëwee say mbokk say xarit luñ la xaritoo xaritoo bu amee ku ñëw ci daj bi sa sañoo gunge kenn sañoo génn naan yaa ngi gunge kenn baa di ko woon yoon xalaatoo ko hmm? sañoo génn même bu fekkoon ne ku xamul yoon la mayuñu la sa mayu la nga génn won ko ne yoon bii ngay jaar dañ laan la mukk ci àdduna bul ko gunge bu demee day yóbbaale dee bi hmm? mu mel ni itam li nga xam ne mooy sangu jigéen parfum bi gën a am solo ci moom mooy ndox mm-hmm. looy parfum parfum boo fonkul ndox di nga am nazafa waaye nazafa saaxira doo fa yegg mooy cet googu ñëpp soxla fa nga dul yegg mm-hmm. waa léegi bu fekkee fekkente ne tere nañ nit ki ndox mm-hmm. ndox moomu ñu la tere yow ci ngay suturloo ci ngay laab mën a jàkkaarloog buur bi subhaanahu wa taala mm-hmm. yëre ya ngay sol ñoom ñoo la koy tànnal dindi ay sagarit ci lenn ci yëre ki nga xam ne moo dem yii ñu takkal la ko ci bopp yii ñu awalee la ko ay téere takkal la ko muy lu muy lu doy waar Sénégal am na ñoo xam ne buñ la waxee bi ñuy teñju seen boroom kër la leen ca fekk mhm. ay teeñi bopp mhm. la leen ca fekk mhm. hémorroïde ndax toogaay bu yàgg ba la leen ci fekk ay sciatique ndax euh, benn moment bi nit ki toog benn article ci moom yënguwul loolu dafa doy waar doo jóg defal sa bopp dara toog benn espace jàkkaarlook penku bi sàngu ku la gis nga souffrir amul kaf amul ree dëgg la gi sax am na foo xam ne charia du la ko fo yóbbul mais au moins yow nit nga mm-hmm. da ngaa war set li la jege dafa war a set mm-hmm. nga mën a jaamu sa borom te xam ne tenj gi itam jaamu la te amul jaamu yàlla bu yàlla salteel mhm. yàlla léppam dafa set kon du ñu ñëw di jaamu buur bu tol ni yàlla ak sellam mhm. ba pare ñun ñu bëgg tilim bëgg koo jaamu ndax buur bi subhaanahu wa taala moom dafa set mhm. yonent bi nee na inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kon ñun il faut nekk min al tawaabin waaye ñu nekk min al mutatahirin yàlla dafa bëgg lu set yàlla dafa bëgg lu sell kon lépp loo xam ne rek Euh, l'islam moo ñu ko sant ci biir ji ñu respecté ko daal di koy def mhm. waaye lépp loo xam ne ay xuraafaati adduna ay doomu aadama ni ñun rek ñoom ñoo ko créé mhm. nan nan ko moytu daal di koy daw mhm. waaye ñu bañ a bokk ca ñay alquran di tudd di naan leen toujours ñoom dañuy bàkkoo inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala asaarihim muqtadun waaw comme fekk naa sama maam wala sama bàjjan wala keneen def ko soxna Khadija ma dog la foofu mooy ñi nga xam ne ne ñoom ñooy teen ñi nekk ay xale la plupart ay maire ñooy jóge sa kaw ga ñëw di leen assister maanaam di leen di leen wax li li ñuy def ñoo leen di former waaw waaw ñoom ñoo leen di former booy dem toilette sax dañ lay ombat yóbbu la Eh, bu nekkoon si sa salle de bain. Mhm. waaw ñu ne dañ il faut am ko jiitu daal nga topp si gannaawam. mu yóbbu la fa loolu de ma ko woon. xam nga dafa bëri. li li ci yéeme mooy dafa mel ni ñoom. lépp li ñuy def boo ko calculer ci ay euh, yu sew sewaan yooyu dafa mel ni benn. taabir bu ndaw moo nekk a kulli dhalik boo doon jéem a liir wara assutur tashuru anna hunaka shay yuuxi ila annahum yaquluun kii daal comme jëkkëram dem na ñun dañuy bañ moom it mu dem day mel ni loolu ngay wax day mel da ngay wax ak buur bi ne yóbbu nga sama borom sama borom kër mais man moom bàyyi ma fi dinaa saltel kii daal waaw daal ba nga bàyyi ma fi parce que li tax ma wax loolu mooy dangay ngay amaat beneen masal ci li nga xamante ni nit ki bu doomam buy am doom doom ji di dem képp jigéen boo xam day faral di am doom doom jay dellu bu amaatee beneen dafa yaakaar ne mën naa doone sax nax mais dafa yaakaar ne mën naa kii borom bi mhm. tuddee ko kenn buggul mooy masalan kii bugguma ko mhm. ndax dina fi des ndax yàlla bàyyi ko fi mhm. ok parfois nga tuddee ko yàq mbootaay xam naa du fi yàgg kon daal yàlla la ñuy jéem a <laughs> masalan foofu loolu loolu da cee am lu fi Seyda Khadija wax dafa am solo parce que loolu waral na ba si yenn ci aada yi si ñenn ñi euh, jigéen bi buy simmi sax day ànd ak benn mag ñu dem ba ci àll ba nga simmi yére yi nga doon teñ ya nga sànni ko fa mhm. sol yeneen yére ñëw si kër ga ba dee ba moom na des yow nga ñibbi si dafa mel ni daal dañuy xaw a naxlanteeg yàlla ci lu bëree bëri te loolu wax dëgg yàlla sonal sa bopp la imaam sonal sa bopp la ndaxte yàlla moom ku mu bëgg a jël kenn mënu ci dara qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum thumma turadduuna ila aalimi al ghaybi wa shahaada allahu akbar loolu nag wax dëgg yàlla buñ ko defee suñu xel yi rek danañ jaamu yàlla comme ni mu waree duñu sonal suñu bopp si dara aada dafa am lu aada bu rafet islam nangu na ko mais am na aada yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla def ñuy yàqal suñu jaamu yàlla bu nekkoon ne yàqul ñu mën a wax u anhan kay mais luy yàq moom sa sa njaamu yàlla bàyyi ko fa di yàq sa santé. Mm-hmm. di yàq sa di yàq sa xel. Mm-hmm. ah yooyu yëpp vraiment yaakaar naa ne mm-hmm. l'islam moom da koy xeex. da koy xeex bu baax a baax baax baax. waaye léegi kii teen ji moom damaa dégg ñu ne kii teen ji warut a génn. léeg-léeg sax ku ko gis da ngay daal di daw. maanaam kenn du ko ñeme. moom day nëbbutu nit ñi. nit ñi di ko di ko daw loolu tamit ma bëgg a xam ba ndax diine la wala déet waa imaam loolu it du diine hmm. bokkul daara si diine hmm. laysa min min a diin fi shay hmm. euh, ndax kii tenji dañ laa wax nga toog sa kër borom kër borom kër fu mu dëkkoon ba gaañu waroo faa génn am na ñoo xamante ne dañoo jàpp ne sax sa borom kër bu faatu da ngaa war a ñibbi seen kër loolu xataa la déedéet islam dafa santaane nga toog sa kër mhm. même bu nekkoon kër boo xamante ne dañ koy fayal luwaas mhm. am nga loo ko fayee wala am na luñ ko fayee mhm. nañ ko fayal luwaas bi mu toog foofu ba ten jëm jeex mu doogay ñibbi beneen bi mooy génn bi dañ koy tere si naka mhm. bu fekkee ne génn boo xamante ne génn daruuri la mhm. lu munta ñàkk mhm. mooy dafa war a faju ji hôpital dafa war a liggéey bu liggéeyul du ñu am lu ñu dundee mook ah, njabootam day liggéey waaw bu fekk mun na liggéey ah? ak melukaan bu muy génnee te nag euh, imam lu jar a préciser mooy jigéen bi bu muy tenju nu mu war a soloo nu mu war a muuree yaramam nu mu war a mel jigéenu jullit noonu la war a mel tout le temps Ah, noonu la war a mel tout le temps différence bi na rek la mooy yëre yi muy sol bu mu fës allahu bu mu def ziina bu mu takk ay lam mhm. bu mu takk ay or mhm. bu mu takk ay jaaru mhm. bu mu def lépp loo xamante ne dafay attirer ay góor ci moom bu mu pastelewu bu mu bu mu bu mu bu mu maquillé wu waaw loolu mooy différence bi mais imma da ngay sol yëre yu jot nga muur sa yaram loolu jigéenu jullit noonu la war a mel melukaan moo wala deelewul waaw loolu leçon la de Mm-hmm. waaw loolu moom moo taxit nag buy génn bu fekkee ne dafay liggéey te mm-hmm. liggéey bi mënut a ñàkk mm-hmm. mun na dem liggéeyi mais ci melokaanu boobu beneen génn bi mooy bu fekkee ne am na soxla boo xam ne bu jàmp la mun na ko defi mais nag génn yi ñuy tere mooy dem xew Mm-hmm. dem seeti say xarit mm-hmm. génn boo xamante ne da ngay dem rek pour féexal say mën naa ñàkk mën naa ñàkk yooyu génn dañ koy tere dangaa war a toog ci kër gi mm-hmm. beneen bi mooy waruñ laa gis a kenn da ngay nëbbati nit ñi loolu tamit la ay si xuraafaat parce que gars yi nee nañ moo soo gisee kuy teeñ da ngay dee de <laughs> loolu lañ loolu wax soxna Khadija maanaam boo jékki-jékki rek gis ku teeñ ay fan yu néew. ci allahu akbar. nga daal di dem allahu akbar loolu ñàkk gëm yàlla la sax. ñàkk gëm yàlla la. moo waral am na ñoo xamante ne bu ñuy teññee dañuy toog. Mhm. ñoom sax góor la ñuy wax ne waroo koo gis doo gis góor. ah góor. góor mais mën ngaa gis jigéen. ñoom loolu la ñuy wax mën ngaa gis jigéen mais mënoo gis góor. bu fekkee ne dem góor la moo tax. ku dem góor la ah, <laughs> mun na am xanaa. waaye nag dañuy <laughs> wax ne kon moom dañu koy waaw loolu gaafal léegi bu ko defee bu ko defee da ngay muuru toog bu fekkee góor ñëw na rek nga xëcc sa kii yëpp nga sëgg doo ko gis du la gis dañ koy wax si yenn si aada yi allahu akbar donc loolu yëpp si xuraafaat yi la bokk jigéen buy tënj mhm. l' essentiel na nga sol yére yoo xamante ne yu set wécc la mhm. bu mu fës mhm. mun na nekk yére bu we am na ñoo xamante dañ lay wax ne yére bu ñuul ngay sol yére bu ñuul waaw waaw dëgg la loolu gis naa ku jigéen ki borom këram faatu njëkkee ñooy dem jëndal ko tisi yu doy waar tissu boo xamante ne kenn xamul lu muy nuroo bu ñaaw a ñaaw ñaaw ñu indil ko boole ko ko bool mm-hmm. paaka mm-hmm. non euh, pan mm-hmm. siwo lépp loo xamante da koy jëfandikoo du lekk ak nit ñi du bokk ak nit ñi dara lu muy jëfandikoo dañ koy tibbal dañ koy tibbal mooy lekk moom kese du bokk ak kenn lekk xam nga ni loolu dafa metti def xam nga kii nga xamante borom kër këram faatu na da ko war a dugal ko si nit ñi xelam dal bu jaamu yàlla soulager ko muy gis nit ñi di waxtaan waxtaan mu mun a nekk ak nit ñi mais bu mm. fekkee ne mu ngi ànd ak nakar benn ñaareel bi aussi ñu ber ko lekk sax doo ko bokk ak nit ñi leneen lay nuru te dafay gën a doy waar loolu oustaz day liggéey si psychologique dégg naa sax ñu ne fii euh, boo tenjoon ba jeexal masalan góor ñi mm. sama moromi góor ñi ñemewuñu jigéen ju jëkkëram dee mm-hmm. nee nañu ku jëkkëram de boo ko takkee mm-hmm. yow it euh, nam def jëkkër jë mm-hmm. noonu la noonu lay def loolu tamit nekk na lu xaw a lu xaw a doy waar ah. kon xanaa dafa mel ni ku jigéen kay rayee ndeysaan loolu lu ñu jara lu jara bàyyi lu ñu jara lu jara bàyyi xel la ndeysaan jigéen ki rayewut yàlla borom bi tabaaraka wa taala moom man nag bëggoon naa ngeen créer benn mbo benn benn mbooloo moo xam ne mhm. dafay aar ñiiteen ji mhm. yéen jigéen ñi xaw ma nu koy tuddee nag mhm. association boo xam ne pour la protection des xaw ma lan des veuves des veuves voilà loolu na ngeen koy parce que am na solo parce que vraiment jigéen ñi teen ñi sonn nañ trop sonn nañu sonn nañu parce que koo ci waxal rek surtout ku ci jaar si ñi ma ci jox jot a waxtaanal mhm. wallahi imam bu ñu waxee dama leen di yërëm dañ may wax ne Fatima sonn nañu dañoo sonn li ñuy teg affaire bi daf lay traumatiser en fait. Euh, daf lay indil beneen problème. te jigéen sang la. Mm. jigéen oh macha allah. ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen tuddee woon xawaariir. ndeysaan maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk ñii. ki leen di teral mooy ki tedd. Mm-hmm. ki leen di toroxal mooy ki. allahu akbar mm. soxna Khadija looy looy yokk foofu. macha allah mooy euh, li ma la waxoon sànq rek kaddu gi da nga ko teg ci place am mooy ñii teñ dañoo sonn. ndeysaan lekkatoo ak nit ñi toogatoo ak nit ñi rek wéetaay boobu rek dafa doyoon sax nit ki daanaka perturbé carrément mm-hmm. muy loo xamante nit ki mën na cee jële chalal zihni boo xamante ne yàlla rek moo xam euh, fan la koy euh, saafara daanaka day nekk ay ayyaam yoo xam ne danaka mën nga ne lépp ay layaal yi lay doon ci moom du xàmmee guddi du xàmmee bëccëg ndax kenn du mhm. la jege ma ne la satala bi ngay laal sax doo ko bokk ak kenn mhm. eh, bi ñuy paree ci li nga xamante ni moom mooy muxaadara bi da ngay toog ak ay nit eh, mais buñ la waxee yow da nga naan loolu amul woon kon sànq comme li may wax rek يختلف باختلاف العادات والتقاليد جيس نغا تنجبي دا فا ووتي سلو لاكي اك اداي اك تيوسان يي اك واسوي باسكو ني دا نكوي ديفي ني ني ديفي كو ني مي دا فا ام نيو غنا ميتي لي نيغا خامني دنج لين ن ليپ نيول مثلا غا سول ليپ لو نيول بول واخا كين بول دمالانتي كين tay bo doon liggey sax dañ nan la liggey bi ngay liggey nan ko arrêté hmm. Hmm. xam nga lolu réel sa diiné ci la hmm. bokku parce que jigen bi nga xamné mu ngi téñj solo niko l'islam digalé mën na solo solo bu yem bañ a boole lépp luy taar mhm. bañ a taarul boppam ci lenn ci takkaay wala lenn ci parfon wala lenn ci dax lépp loo xamante ne day yokku taaram ci bu weesu bi nga xam ne moom la ko yàlla bindee rek mhm. waru ko cee dolli waaye yëre ya muy solit na jot mhm. la ko lislaam doon digal muy ñetti melo ya bu mu gàtt bu mu xatte bu mu yaraa kon xam nga yaa oustaz képp ku sàngul sa yaram rek boo tenjee di nga xam ne lislaam ay dëgg parce que ba nga sàngul sa yaram te ngay julit mhm. nga am turu julit ñu la koy woowee mhm. ngay dem toujours foo dégg ñu ne julit ana julit ñi nga ne maa ngi nii mhm. te daawoo sàng sa yaram keroog ba nga tenjee xam nga ne ndekete lislaam rek ay dëgg ndax sa karaw génnatul sa yaram génnatul solo nga na la lislaam loon digalee waaye sax dañ la koy dolli leneen parce que dañuy mujj muur la que lislaam nag dañ ne la maa adal wajha wal kafayn kon yow am au moins liberté sa kanam gi di génn mhm. am nga say kaff di génn mhm. mu des nag ci ixtilaaf ndax kaff gi mhm. kafful ala yi da ci bokk ak suflaay wala kaff yi ya day ne rek lay yem kon nga xam ne lislaam wama jaala aleykum fi diini min xaraj la yàlla wa l'islam dafa ñëw pour résoudre suñu ay problème macha allah l'islam bu ñu ko jëlee mooy suñu médicament wu ay feebar day wéral feebaru xol yi di wéral feebaru xel yi di wéral feebaru muamala muy jëflante gi ñu war a jëflante suñu biir kon jàmmoo gi mënuñu koo am lu dul ñu dëppoo ci l'islam waaye suñu ay tenj mënta lewet lu dul ñu delluwaat ci njàngalinu l'islam yi l'islam jàngale na woon lii lépp na nga war a desee ci biir kër ga budul nga wara genn dem jangi mba nga wara genn li nga xamanteni mom moy dem liggey ji mhm. boy gennit nga genné nako l'islam soxla moy mhm. nga genn genn bu sel mhm. dem ful la ci li nga xamanteni mom ngay outil delu ci wat sa keur borom keur tok fa waaye dess ba ngay def ci bir keur ga nak dañu ko jël def ko loo xamante ne lu war la mhm. wareef la nga des ci kër gi nga xam ne ci la sa borom kër daal di làkkoo mhm. loolu nag ay xikma yu bëri da cee nekk ci diine mhm. mooy yëg bi lislaam yëg responsabilité borom kër ak màggal gi ko lislaam màggal waaye yëg bi mu yëg li nga xam ne moom mooy aqd ziwaaj mooy sëy li nga xam ne tey dañu koy fowe jàppee ko benn benn pause bopp dalay neex nga teg mbaa nga teggi mariage boobu valeur bi ko lislaam jox moo waral bu nit ki demee ba ànd ak borom këram ci sëy bi nga xamante ne dafa set wi ci aw fi war a aw ci diine ji mm-hmm. bu boobaa nga bàyyi ko xel lool mm-hmm. doon boroom kër goo xam ne dem na mais terewul li war sa digganteeg moom yaa ngi koy topp ba keroog muy jeex kon yaa oustaz l'islam dafa set mm-hmm. loolu yëpp dafay wane catam mooy bàyyiwul sa borom kër dem rek nga daal di jéggi ay àqam ak ay droit am déedéet mais droit wu sa borom kër dafay des ci yow ba ni mu dëddoo dem wan la ginnaaw mu war nga di ko ñaanal war nga teññ ko ñeenti weer yooyu ak fukki fan yooyu waaye ci bir teññ bi oustaz dañuy dugg fofu ci ñaari façon wu teññ yi nga xamne mom mo am ñaari jigen ñi dañuy teññi kenn ki borom xam-xam yi tuddé ko al maratul ha'il al ha'iq ak al mara bi nga xamanteni al ha'il ak mara al hamil al ha'il moy ki nga xamne ne ëmbul mooy jigéen bi nga xam ne masalan dara nekkul ci biiram mm-hmm. kooku dafay tënj ñeenti weer yi ak fukki fan yi ba mu mat mm-hmm. mu des jigéen bi nga xam ne nag yàlla dafa def mu daal di wan lor mm-hmm. kooku nag datam moom mooy an yadaana xamlahunna kooku saa yu nga xamante ne la mu ëmboon immi ne ko ca li nga xamante ni moom mooy muuram di yem kon tur bi sax boo xoolee wala fii dañ naan muur mu ngay muuru kon ma dikkiti muuru dafa waroon a sax waru woon a nekk période boobu kon foofu soxna Khadija am na benn laaj bu ñu bëgg laaj foofu mooy mm-hmm. jigéen ji nga xam ne bii borom këram di faatu mm-hmm. dafa jege lool mm-hmm. bisam bi muy wasin masala dis na gan faatu na ñetti fan ñeenti fan rek mu am doom boobaa léegi moom day pare si si si si si si si si si tënji diggante mook borom këram walla boog day continuer سخنا سخنا سخنا فاطمة واو إمام كم سيدة نمكوهي واو أولاد الأحمال أجلهن أن يدعن حملهن نينغا خمنتني دنيو نيك سي أنيتا دنيو أمب سيني تنجي كان لي جيه موي بني بني أمي دوم أمي دوم جيه مثلا جكرم فاتو نميدي أمنا دوم تريزا تنجم جيهنا جيهنا تاك جيهنا تاك amatul lu muy teñ amatul leneen kon dama mel ne kon l'islam li tax mu tegal tënj moy day bàyyi xel biir bi digënté ki faatu ak ki nga xamni moy dunda parce que dañuy wax ne xam nga bokk na ci hikam yi nga xamantene mu ngi ci tëñ secret yi nga xamantene yàlla tag na mu teg jigen bi tëñ moy baraatul rahim baraatul rahim moy ñu xamni ki kat ëmb na wala ëmbul xam nga imam islam dafa civiliser ma sha allah islam dafa civiliser bu fekkone ki nga xamante ne euh, borom këram faatu na. Mhm. ñu bàyyi ko boppam. Mhm. islam tegu ko dara waxu ko dara. Mhm. si saa sa mu amaat beneen jëkkër. bu fekkee ne ëmb na kan moo ko moom. wallaay kenn xamul day jaxasoo day jaxasoo moo waral islam lépp ma baax. lépp ma taaru macha allah moo taxit man li may yàgg wax ne mooy. bu fekkee ne ñun jullit ñi. ñu ngi teg suñu tànk fu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam ni ñu yàlla borom bi subhanahu wa taala sant. wallahi duñu mos a am problème. wallaay dëgg la. duñu musa am problème ndax dañ ñoo tegal lépp ay yoon yu set yu leer nañ nee na teg leen fi seen tànk جار لين في بولين فجارة دعنة دولنا كم بايخل وما نعرض عن ذكري فإن لحوما إن شتن دنكا ما يدون دون نقري جيرك جف جف يني دون ديب نيو كتكس بوب لب لو خمن دن يوم كوي دون نسي أي جف جف جارول نيو لات نيو كتكس بوب ده دنيو تيج سنيو تانك فين كتكون دنيو باي يون بيع خمن دن ورون نفجار نجار يون يون نيح يالله باي نيو كتكس نيو بوب bàyyi ñu ak mbindee mbindee famille mm-hmm. macha allah mm-hmm. moo waral jafe-jafe yi mm-hmm. donc imam tënj jigéen bi nga xamante ne ëmb na imbi bu imbee rek tënjam jeex na kon léegi soit mu gàtt soit mu gudd ku bëgg mën naa ñëw labat xam nga bu fekkee ne ñeenti weer ak fukki fan la ñu wax bu fekkee ne ku jigéen ki borom këram faatu na ñu teg ci quelques jours ñu xam ne kii ko ëmb la. dana toog juróom-ñeenti weer. dana toog juróom-ñeenti weer. mu doog di ko idda di ko idda. macha allah bu fekkee ne am na doom gannaaw heure. wala bis wala ñetti fan. day jeex. allahu akbar foofu la kon seqatul dara. ak ki nga xam ne moo faatu. moo faatu macha allah. parce que Khadija fiq neex na de. diine yàlla moo macha allah soxna yu baax yi macha allah yow ajaratu bi may seetaan. di déglu si soxna yu baax yi wax dëgg yàlla dama jàngi diine waay. diine neex na trop macha allah taala te góor mën na ko am. jigéen mën na ko am ko xool sama sama ñaari invité yi wax dëgg yàlla ñu ngi fiy sotti loo xam ne imaam yee ko fi doon sotti borom xam-xam yi sëriñ si macha allah yàlla leen yàlla defal tawfiq leen defal leen jàmmi àdduna ak jàmmi soxna Xadija dama bëgg nag nga tënkal ma mhm. ay laay biir ay nasaaix ay gendeeku yoo xam ne dama koy tënkal nga sànnil ma ko si Kumba mii toog Zeynab mii toog Roqaya mii toog nga xam ne mi ngi seetaan émission bi nga xam ne bis bu tolloon foofu si li nga xam ne mooy bunt bi ñuy wax du am benn problème day ñëw rek def ko facilement comme ni ko yàlla santaane ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Khadija waaleykum salaam marra thaalisa ya xadrat al imam comme ni nga ko waxee rek muy émission bu ama am solo Euh, maa ngi dénk sama bopp noonu laa koy dénkee sama mbokk bépp jigéen ak mhm. fépp fu ma mën a ne mhm. kenn ñaanalu la ko yow sama soppe kenn mhm. ñaanalu la ko yow sama doomu ndey mais àdduna ñun ñëpp dañoo nekk ci yoon ku ne di dox sa mission bis bu dem jotee rek dangay ngay dem waaye boo tolloo ci marxala bi ñuy waxtaane tey boo tolloo ci étape bi ñuy waxtaane tey muy teññ ngalawaay gestul sa alquran lan la la wax mhm. gestul sa diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sunna si lan lañ la fa wax mhm. soo bëggee noppalu te dañ ko war a jàng nag ah? dañu tënj ko war a jàng yaa oustaz oustaz dama dund benn histoire bu triste waaw ab màgget boo xam ne bi boroom këram làqoo ci lay jàng jàpp yaa oustaz mu dund ak boroom këram ñu ne ko ñaata at nga def mariage mu daal di nettali ne mhm. ci gémmiñam ne moom yàlla def na ne dund naak boroom këram fanweeri at kon kii ñaata at la amoon laata muy def ci mariage am 30 ans d' expérience. Mhm. mais année yooyu yëpp moom nan la doon jullee ak nan la doon jàppee. tey lay soog a jàng jàng hmm. tey lay soog a jàng li nga xam ne moom mooy jàpp. tey bi yàlla yóbboo boroom këram. Mhm. te mu wóor ko ne malaaka bi nga xam ne mooy malakul mawt. Mhm. saa su ne dañuy ziyaar ci ci kër yi mm-hmm. bu jëliwul góor rek dina jëli jigéen mm-hmm. bu jëliwul magit dina jëli ndaw kon saa yu jël see mm-hmm. ka mu jël si mu dem kenn xamul ndax kan moo ciy topp man la yow la yow miy seetaan la keneen la kenn xamul kan la muy kumpa ci ñun ndax yërmande yàlla bu ko neexoon mu wax ñu ku nekk kañ lay dem su ko defee dootuñu tal lekk dootuñu tal naan waaye moom latifun bi ibaadihi moom subhaanahu wa taala ci yërmandeem ak baaxam mu làqu ñu bis ba kenn xamul kañ la yalla way bu bis boba bula ma samba jangal sa diine mhm. bula ma demba yakal sa diine mais mhm. geumal ni l'islam mo ñew ngir fajal la mhm. nga wara meuna tenji tenji bu set bu andut ak daray bokale andut ak daray sobe fañu lay yobbu ñalay taril ay jatt ña lay takkal ay téere te yow nga ne sang bi nga bëgg sallallahu alayhi wa sallama te mu ne la woon ca la mu daan wax man taallaqa tamimatan faqad ashraka beneen bi mu naan man taallaqa tamimatan wukkila ilayhi kon yow nga xam ne nee nañ la boo takkee li nga xamante ne mooy ay téere ay gàllaaj yàlla dalay bàyyeeg moom loolu dina manipuler di la toroxal fii ci àdduna waaye boo ko takkee dangaa utal yàlla ndend dangaa utal yàlla moroom waaye ustaas di si gën a yéeme dangaa weddi suratul ixlaas muy qul huwa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 daal di ah jàng diine rek mooy jigéen ñi nañ jàng waaye mm-hmm. jigéen jàng ndax mm-hmm. euh, jamono ju nekk jigéen jamono ju nekk saa su nekk bis bu nekk lislaam mi ngi koy mi mm-hmm. ngi koy mi ngi koy conduire surtout nag man damay wax ne jigéen bu góor doon jàng benn jigéen war naa jàng fukk ndax jigéen moom léppam rek xam-xam la xam-xam la te nag ah, euh, ëmbam gis dereetam wasinam ah léppam rek ndeysaan soxna Fatima xam nga dund na fi loo xamante ne si histoire bu mu nettali mhm. ki nga xamante ne mënul jàpp mhm. ci ñi ñuy tenj mhm. parfois da ngay gis koo xamante ne mu ngi war a teññi war a sangu set xamul nu muy sangoo set te sangu far sangu set moom lu mënta ñàkk la mënta ñàkk léegi dañ lay booleeg benn meer rek mu lay jàppale di la woon ni ngay sangoo la ilaha illallah imaam damay delluwaat ci aada yi de pareeguma ci pareeguma ci ndaxte dafa sonal nit ñi dëgg la bokk na ci ba tey. Mm-hmm. bu gën a yéeme. Mm-hmm. boobu moom bi ma ko déggee damaa tiit man. Mm-hmm. par exemple ki nga xamante ne faatu na bàyyi na ñeenti jabar. ñeenteel bi ñu ne yow yaay njëkk tisbaar bu jotee daal heure bi julli jot. yaay njëkk julli midi nga koy julli yow. ah nopp dalooti ne. lii moom lii de moom <laughs> laa jotagul. jotagul ñu ne la ku ñeenteel bi yaay njëkk julli yow. yaay njëkk julli. yaay njëkk julli. Mm. ñetteel bi topp ci uh-huh. ñaareel bi ñëw aaw bi comme que aaw yee ëpp chance moom mm-hmm. ñoom moom ñooy julli ci tisbaar ba allahu akbar kon léegi euh, ñeenteel mooy julli midi mm-hmm. ñetteel bi julli midi trente mm-hmm. wala euh, kii kii julli une heure kee moom julli deux heures waaw wala di une heure trente waaw waaw lan loolu ñoo ko teg ay aada rek aada yi nga xamante ne teg nañ ko kenn xamul fu ko jëlee nag xam-xam yoo xamante ne te nag bokk na si liy wéral julli duxuulu waxtu salaat ah duxuulu waxtu salaat loolu lañ jàng di xanaa loolu kay mooy si shuruutu sihhatu salaat la bokk allahu akbar beneen bi mooy ñu ne la timis moom bu jotee yow sax doo waroo génn waroo kenn waru laa gis timis bu jotee moom da ngay fatu complètement yow mi tenj yow mi tenj ba subaati ba subaati rek am na si ñoo xamante ne dañuy wax ne tamit ni ngay fatoo timis fajar moom du la fekk kaw lal da ngay jóg loolu moom fajar sax nga teel a jóg mm-hmm. loolu lu baax la mm-hmm. kuy tënj ak ku tënjuwut yëpp a ci bokk mm-hmm. lu ci doy waar mooy charte bi ñu ko chartal daa am leneen luñ ci liñ ci liñ ci liñ ci dexiñ mu nekk yu doy waar imaam am benn laayu biir bu ma bëgg a joxe rek mooy ñun soxna yi képp koo xamante ne jullit nga sax war nga jàng li nga xamante ne mooy sang néew wallaay ndeysaan surtout nag soxna yi gis nga euh, ñaari way dencante dañoo war a jàppalante ba jàppalante si dee. ndeysaan mm-hmm. allahu ki nga xamante ne loolu de moo tax a jóg émission bi mm-hmm. émission bi moom li muy jàngat mm-hmm. mooy ki nga xam ne ni kenn bëggatu ko mooy néew bi émission bi mooy émission bi nga xam ne néew bi lay protéger néew bi lay wormaal néew bi lay jàng lay jàppale parce que néew bi tëdd na mënutul dara moo tax ñu ñëw di dem di dem di dem ba ñëw si tenj bi wax dëgg yàlla góor gi waxoon nañ si benn émission xam naa yéen faaw ngeen ñëwaat ñu ñu invité leen ngeen jàngal ñoom Mariam ñoom ñoom ñoom Fatou Ndiaye nan la ñuy sangee nan la ñuy doggalee sax sa borom kër ma ngaa tëdd ak moom ba une heure du matin muy sukuraat léegi da daw bàyyi ko fa te li gën a doy waar wax ko ko mooy mm-hmm. am na jigéen ñu bari ñoo xam ne bu seen jëkkër xasee faatu mm-hmm. ragal nañ ko mm-hmm. ragal nañ ko ku leen waxoon kaay tëdd ak moom ba fajar jot ñu doo ko yóbbu sa morgo ba ak ku leen rey lañ ñemal am na si ñoo xamante ne sax dañuy wax ne si aada yi doo xool fotom kii faatu doo xool fotom yow mi jigéen doo xool sa foto jëkkër ndax ah. faatu na doo xool fotom xool fotom léegi nag mu nekk point yoo xamante ne yu am solo li ma la wax suturaan jàppalante bi gis na ki nga xamante ne yéen sekk lépp seen biir yéen ñaar bu demee ba génn àdduna nga war koo taxaw jàppale mm-hmm. boo ko xamul mm-hmm. noo noo koy jàppale te balaa keneen di ñëw di ko xool di gis yaramam yow mi nga xamante ne yaay soxnaam nga war koo taxaw sang ko ba mu set ah, dimbali ko solal ko mm-hmm. ah allahuma amin waaye nga jàppale ko ba nga xamante ne ñu jébbal ko boromam si anam yu gën a sell yu gën a baax sa xel dal loolu dara gënu ko moo waral dañoo war a jàng imaam Rawhan Mbaye dañ koy nuyu am na ci centre bu baax macha allah mu ngi ciy jàngale di ci former ay nit mhm. war nañu dem ñu def formation yooyu ñu jàng ko mhm. imam dund bi lu mu yàgg-yàgg dee day ñëw luñ ko ragal ragal dana ñëw luñ ko daw daw daw dana ñëw kon nag dañ ko war a préparer ku dund dana dee ku mos dund rek danga mos da nga mos dee kon nag jarta ragal jarta daw xanaa kañ mhm. ki ñu wax ne yow yaa ngi dem di dajeg sa borom lan mhm. moo ko dàq xanaa kay da nga war a góorgóorlu di liggéey di naan ah man de bis bu ma dajeg sama borom mhm. dana ndax yàlla bégal ma ndax ma kontaan xam nga koo dem ba nga xamante ne wax nañ la noppalu na mm-hmm. ñëpp noflaay la ñuy wër de wallaay ndeysaan mm. xanaa dañoo def loo xamante ne bëgguñ faa dem dëgg la dëgg la kon nag nañu góorgóorlu man de dama jàpp ne nit ki boo buggee sa dund gudd mm. nay fekk ne nga bëgg def jëf yu baax mm-hmm. liggéeyal diine mm-hmm. liggéeyal société bi liggéeyal sa askan ba nga xamante ne liggéey bi dana bari waaye nekkul ne dañoo ragal dee rek ndax de dafa métti wala dee dafa doy waa amma ma yanfa'u nnaas fa kon nag am njëriñ moo mm. war a yàgg si si si si société am njariñ si diggante mook boromam am njariñ ci diggante mook diineem am njariñ ci diggante mook ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñoo nekk ci société bi kon nag dee jar taragal mm-hmm. jar taragal jarul ñu koy daw lépp loo xamante ne mu ngi ciy war rek mm-hmm. te laa budda mu am mm-hmm. war nañ koo préparé tey balaa suba di ñëw kon nag Euh, lu jar a bàyyi xel la loolu message boobu laa bëggoon lancé sama mbokku jigéen yëpp ñi nga mm. xamante ne ay jullit lañu mm. ñu ngi ñu ngi bëgg a seen diine comme ni mu waree mm. te xam nañ ni un jour viendra soit yaay njëkk a dem wala sa borom kër njëkk dem mais na nga pare rek ku ci njëkk dem rek keneen ki mun laa taxaw allahu akbar mm-hmm. soxna Khadija ñu ngi may signalé ne juróomi minute moo des mm-hmm. boo doon tàggatoo ak sa kàddu gu mujj mm-hmm. lan nga ñuy jox macha allah yaa oustaz li may tàggatoo mooy euh, émission euh, yàlla yokku la bu baax yokku kër gi nga xam ne itam fi nga koy defee muy RTS taxawul leen barkeel leen zahiran wa baatinaan numéro un de parce que ñoom dong ñoo amagul émission mel nii dafa ah, RTS macha allah ñoom ñoo calculer dund ba calculer ka nga xamante ni nekkatu kon loolu ama am solo la yal na leen mm-hmm. te euh, yokku seen ay mën-mën yokku seen am bu baax a baax ci kattanam moom borom bi lu koy yomb la allah Mm-hmm. waaye yaa oustaz euh, man dama naan rek euh, émission bi li tax mu jërë sedd mooy mm-hmm. dem dund bi yàgg-yàgg dee dafay am mm-hmm. muy allaylu mahma taala la budda min tuluu'il fajr wala umru mahma taala la budda min duxulil qabr kon bu fekkee ne nit ki yaa ngi sedd ne euh, guddi gi lu mu yàgg-yàgg-yàgg bët dina set waye dundu gi itam lu mu yag yag rek dedi nako dog khadija tagatol ñu ci pular kon ma taggu ci pular eh, mi wi at assalamu alaykum wa rahmatullah mi salmini kalam wi me mi mami mm-hmm. gondo der lay de ciagal lay di wuro ladde e dundu baba adama fo mi salmini mon mi juri ma mon mi acciani hay goto goto fo tan mi da salmina dum fodde na allah fondi mo ni aduna mi yawna ni ben minute rek ci li message bi ci pular hande ngarno den ko yewtirde eh, ngandan da ko kanyum woni murade woni mm. ka ngandan da ko su kala mu jom galle mu dum yahi ko non foti ya yanirde dum dum gandanɗa ko noon allah yamiriri o foti wonirde e der galle mum yo won mo gandanɗa si jom galle mum yahi yo jodo e der galle o wasa yaltude don jodo don fodde lebbi nayi e balde sappo den don balde non de gandanɗa ko allah windi de deftere mudum wi yo wadire hono nonen en sa yeehi sorotu bakara ma taw dum don allah joomen ina wiya wallazina yatawaffawna azwajahum yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa achara ɗeɗo balde wona lebbi nayi e balde sappo ko dum de debbo foti muurade joom galle muɗum adiɗo mo so ɗum waɗi kadi gonama gandanɗa areno to ñantugal ɓurtugal mhm. areno to kaɓɓari areno to buddi mhm. areno to kala ko gandanɗa tan ko ɗum ñantugal mhm. gona neɗɗo mo gandanɗa e, kadi ne a yaltata kaɗa e nder galle o sa yalti tan yo won ko golle yaltinma walla ko yilluyade gandal ɗum ɗon ne sa yalti yaltir haajo garta e haajo wasa won jaltugol ngol gonɗa a yaltan jaaha ga kucca to jaaha to henna yo Allah windu en gonen julbe be gananda si musi ya en dewat Allah si mettini en dewat Allah parce que dewgol Allah wona e en gurnam jom galle matan en dewat Allah eh. si den gurda jom galle o mesi sanki mani en dewat Allah soxna si man nga man nga man nga lak pular aha bismillah loy loy ni loy loy jox pular yi bandira be la bëgg inviter bi di ñëw ah. inshallah <laughs> bandira be yebobe rts min mm. calmini on on fofé e kubal mm-hmm. min gaccani hay goto mbede mm-hmm. wiyetan mm-hmm. yen mbaɗ feere janngen diine men ngannden diine men ndewen allah no fotiri ni mhm. no haaniri ni mhm. eno poɗɗen rewirde allah ni machallah sabu kala mo janngaani anndata mhm. eh, arabe ne wiye al insan adowun bima jahila eh, neɗɗo noon kala ko anndaari gonta wonata ko gañoma ɗum noon janngen ɗum ko njewteten hannde neɗɗo waawa wadde ɗum so annda ɗum e teeni ko heewi eɗen naannu ɗum e, e nguurnam ɗam imam mbiɗam koye wacce olof par ce que man dama dama gis aada yi dañ ñoo sonal jigéen ñi torop torop waxuma la si teññ bi de mais si loo xamante ne ñu ngi koy dund tey si suñu dund bi mm-hmm. aada yi dañ cee dugg dugg dugg dugg ba indi ñu jafe-jafe ba tënc ñu mm-hmm. ba lépp li nga xamoon buggoon nga ko def comme ni mu waree yenn saay doo ko mën a def ndax teg yi ñu lay teg day diis kon nag ñu ngi kontaan bu baax a baax imam si mission bi wallahi bi ma ko gisee balaa nga may invité fi dem koo seetaan benn bis mm-hmm. ma ne macha allah lii li jara waxtane affaire de kon nak dila ñaanal yàlla yalla na gëna gën a dëgëral yal na la fi yàlla yàggal yokku xam-xam bi ma sha allah yàlla yagal fi télé bi gën leen gën leen a ma sha allah waaye RTS la ñi ngi gëreum suñu directeur général di gëreum ñi nga xam ne ñu ma fi nek di santat yàlla bu baaxa baax di vraiment di am bekté ci soxna Fatima di am bekté ci soxna Khadija émission bi jaar na yoon lool xam-xam yulleeku na fi te yaakaar naa nag yóbbu ngeen jigéen ñi fo xamné bis naka tay jigéen ñi dañ takkuwaat pour jàng seen diine ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaare ñi nga xam ñoo àndoon ak ñun di leen jox dig daje incha allah ba beneen ajjuma wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن